salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di fàttaliwaat ne leen nanu may gan yi nga xam ne woo nañu leen ñu ñëw fi teew ci jataay bi ñu toog dalal leen ba noppi ñi nga xam ne ñoo jógee ci réew ma ñu soog a seet ñu toog ñu toog fa waaye bu ñu toog mukk ci siis yi ñi nga xam ne woo nañ leen fi invité leen tooguñu ba noppi loolu kat mooy yar mooy teggin loolu loolu la ñu sëriñ bi jàngal loolu nag la ñu war a topp ñi nga xam ne rek bàyyi woon nañ leen fii ñuy nekk ci liggéey boobu nañ ko gën a dëgëral te gën a sàmm liggéey boobu te taxawu ko kon du ma def dara lu may wax aslëf ci nga xam ne kii moo ñu war a defal tey conférence bi sëriñ Sam mbay loolu nag dañ koy gàttal ndax jaar-jaar yi bari waaye jataay bi mayewu ko wala ma yegg ci loolu itam dana fàttali ne conférence bi nga xam ne moom la waroon def moom la war a def moom lay war def léegi muy euh, l'islam face au défi universel le message de Cheikh Ahmad Bamba daf ko bindoon ci arab dina am lu mu ci wax ci kàllaama googu dina am itam lu ci wax ci wolof waaye ñàkk yëgoo di amoon ci diggante yi nga xam ne bii ñoo waroon wax moom ngir wax ko mu bind ko ci français sax moo taxoon mu bind ko ci arab ba nga xam ne texte yi préparé wuñ ko ba mu noppi ngir jox ko ñi nga xam ne teew nañ fii ñu koy mën a suivre waaye nag incha allahu danañ yeggale liggéey boobu matal ko nam mu waree ñi nga xam ne bi ñooy suñuy gan te teew fi ñaan leen ñu jox ñu seen i tur ak seen i ngir ñu mën leen yónnee section yooyu suñu suñu matali liggéey bi ci semaine bi kon loolu taxoon na ba mën naa wax ni bii la nekkaatoon ci liggéey bi doon ko liggéeyaat waaye nag dina amee li ñu ko bëgg incha allah bu ñu noppee itam danañu am ay laaj yoo xam ni amaana am na ñu fi bëgg a laaj jëm ci diine wala mu jëm ci li nga xam ne bii moom moom la Serigne Sam di wax te it mu jëm ci diine sax kon euh, loolu tax na danañ gàttal wax ji ngir jéem a dugg ci waxtaan ba lañ ci dugg nag danañ euh, présenté ki nga xam ne kii mooy Serigne Sam Mbaye ak ay jaar-jaaram ci tënk moom Serigne Sam dañu wax ne mi ngi jut mi ngi feeñee ci Louga ci 1929. kon ñaari at ginnaaw bu Serigne Touba laqoo di 1927 ci la Serigne Sam Mbaye feeñ euh, kon danañ ko gën a sant ngir mag la te am na àq bi ko war a jox ginnaaw bu ñu ko joxee àq ji nga xam ne moom war ci suñu diggante ak moom ngir li muy borom xam-xam bu sell te rafet la ko tey jëfe xam-xam la. ñu ngi koy xanaa jéglu rek ci coono yi nga xam ne bi moo ne ci voyage bi ak métier yi rek gàllankoor yi ci nekk yëpp <coughs> mu ne jàng na alxuraan ci kër sëriñ Babacar Touré ca kokki ci daara yi sëriñ mat saxiir mu ne def na fa lu toll ci juróomi at biir loolu itam ñetti at yi yu yu yu ci biir loolu ñetti at yi ci juróom yooyu maanaam jàng na ko xam-xam xam-xamu euh, diine maanaam jàng na itam ca barab yooyee euh, kalaama arab googu nga xam ne ci lay bind jàng ci euh, ñuy wax grammaire nahu jàng ci itam fiq jàng ci tawxid tasawuf bi itam comme noonu mu koy faral di waxee mu boppam mu ne jàng jàng na théorie bi te itam di ko jëfee loolu xanaa ñu bari am nañ ci luñ ci xam mu ne ginnaaw loolu jóge na kokki dem ca dëkk ba ñuy wax Saint-Louis ci Sénégal ci Ndar ginnaaw bu mu amee certificat d'étude ak brevet ca jamono yooyu ca ndax yeggale na itam njàngum alxuraan moomu ak xam-xam boobu am na ci lu mu ci ca biir ndar googu mu doon jàngee wàllum nasaraan ba am ci certificat ak brevet ginnaaw bu mu yeggalee xam-xam boobu ci alquran ak xam-xam ca ndar jàll na itam Mauritanie jàng fa xam-xam mu jóge Mauritanie itam ñëwaar ñëwaat ba ca biir Mauritanie ca université bu ñuy waxee Zaytoun euh, safla ca ginnaaw bu mu jógee Mauritanie ca la dem Tunis ci université bu ñuy wax Zaytoun di fa yeggale am jàngam ginnaaw bu mu jógee foofu jaar na itam Égypte jàng fa xam-xam jógewaat Égypte ñëwaat Sénégal di fi jàngale ci benn lycée bu ñuy wax lycée fédéral bi ca Ndar ne foofa Sénégal ginnaaw loolu itam loolu doy ko mu ñëwaat Dakar inscrire waat ci université Dakar fa jàng arab ak lettre moderne mu ne itam ci biir loolu ci la defee thèse doctorat troisième cycle ci senegal ginnaaw loolu moom ba tey muy continuer am njàngam ak i ba inscrire na Sénégal ngir def préparer maanaam li ñuy wax euh, doctorat d'état ci faculté des lettres de l'université de Dakar nekk nii nag ci jamono yi ñuy wax ak yéen ma ngay jàngale foofa ci université de Dakar ba tey ma nga fay jàngale ci liñ ci ci tënk dañ ko gàttal ngir wax wi xam na loolu mooy li nga xam ne bii la jaajaay Serigne Sam maanaam sax ñun yi nga xam ne ñooy wolof ñun amaana sax loolu soxla ñu li ñuy soxla dëgg-dëgg mooy li Serigne Sam di wax ak njariñ li ciy génne ndax ndax pour ci ki xam bu waxee xam-xam day dugg ci xol yi dugg ci xol yi suuxat xol yi te buñ ñu fàttalikoo itam mag ña ne woon ak Serigne Touba Serigne Touba daal daal leen yar ñooñee soxlawuñu woon ay diplôme ak i doctorat te sëriñ bi def na ci ñoom loo xam ne lii bu ñu waxee di nga xam ne ñii gànnaayoon nañu xam-xam mënees naa wax ne moom mënees na ko féetale foofu kon dafa fekk na ñaari wàll dafa am maanaam wàllug àdduna ak xanaa wala wàllub saa rek wàllub baatin kon wàllub saa si faaw ñu wax ay jaar-jaaram ba ñu xam ne du waaj yuy wax di tàndalee ka defee. li muy wax da ko wéer ci xam-xam comme noonu ko na waxee ci njàlleen nga xam-xam li muy wax ci la ko wér itam am xam-xam ku ne war ngaa déglu boo dégloo di nga dégg ndax lu dul dëgg moom lu ne xolo koy bañ waaye nag li muy wax comme ni mu koy faral defee Sénégal dina dugg ci biir xol yi waxtaan wi nag mi ngi ko tër ci maanaam jàngoon jànkoonteeg lislaam ak jafe-jafe yi àdduna yi mu ci wax ci biir loolu man la ci Sëriñ Tuubaa di digle jamono yi nga xam ne dem nañ tey ba euh, lislaam ñu koy ñu bari di ko foyee wala ñu koy jéem a néewal doole loolu moom dina ci indi xalaat bu yaatoo yaatu xalaat boo xam ne bii itam bu ñu mën a dégg la kon duma ma def dara lu may jox ko micro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 yi ma fas yéenee wax te séewu ma ne ñi ëpp ci ñu toog ci saal bi duñu mën a xam lépp waa ni ko sëñ Moustapha misaale woon ñàkk déggoo gi ñàkkoon a déggoo ba ñu wax ni ma da koy bind ci arab mu bind ko ci arab bu fekkoon ne loolu yàlla dugalu ko woon ma bindoon ko ci français dana gën a yombataat yi kon liggéey bi lépp doon na sotti kon bu mu toogee fii tey ba kenn ku fi nekk yaa ngi amee conférence bi benn nga amee ko ci arab français anglais bo mëna jang rek waye lu lepp dañu bëgg ni ko seigne mustapha waxe bu fi joggé ñu def ko bam soti kenn ku ci nek sa adresse bi nga joxe ñu la ci exemplaire ci langue ba nga bëgg légui nak kon ñu waxtaan ci arab leg leg dana di dok, waxtaan ngir sànni ci ay kàddu ci wolof ci wala beneen langue bu ngeen dégg ko بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تفكر وتذكر فإن تحت قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معاني دقيقة وأسرارا عجيبة فقد بنى أمور الخلق على ذلك فبه يصلح وبه يفسد إما اتباع فسعادة وصلاح وإما تغافل وإباء فشقاء وطلاح لقد نصح الخلق سيد العقلاء عليه الصلاة والسلام فأحسن نصحه وقال اطلبوا العلم ولو بالسين وبين فأتقن بيانه قائلا الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها وقال العلامة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليك بالعلم فإنه القطب وعليه المدار واعلم أن العلم والعمل جوهران من أجلهما كان كل ما طرأ فالحكم العقل مصلحا بالعلم فالإنسان كما قاله جمال الدين من أكبر أسرار هذا الكون وسوف يستجلي بعقله ما غمض وخفي في الكون وقال محمد عبيده العقل هو جوسر جوهر إنسانية الإنسان للإنسان وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة فقد جعل الله قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه فبه افترق وتميز عن الحيوانات العقل نبراس ينير طريقه في أموره المادية والحسية فإذا كان هذا العقل وحده لا يكفي لحل بعض المشكلات أو بعض المعضلات لأن له حدودا لا يتجاوزها فالرب تعالى أرسل رسلا لهداية هؤلاء البشر في كل ما لا يستقل العقل بدركه فالوحي يمهد السبيل للعقل في كل ما يشد عن إدراكه ويغتر العقل أحيانا ويحسب نفسه كافيا وافيا أن يصيب الغرض في هذه الحياة في كل زمان ومكان جاهلا أن لقواه حدودا فتزل قدمه بعد ثبوته وترى رأسه فجأة موضع حذائه لا بد أن يكمل الأقل بالوحي فيكون الإنسان خليفة ربه في الأرض دوم آدم بكو سون بروم ساكي اندي كو سي ادنا موي لي ني تودي خليفه الله مو ووتو يالا سي كو سوف نخ ملائكه منو ووتو يالا سي كو سوف ندوند منو ووتو يالا سي كو سوف نيت دوم من ووتو يالا سي كو سوف داخ سي غاتال نيت ديكو يالا ساكي lépp lu mu sàkkoon daf ca sàkk dugal ci biir doomu aadama mu am lu mu bokk ak baahima yi am lu mu bokk ak malaayika yi ñu dugal ci moom leneen loo xam ne amul ci baahima yi amul ci malaayika yi ndax bi yàlla xamalee malaayika yi ni leen damay sàkk ku may wuutu ci kaw suuf te doomu aadama lay doon dañu ne ko dangay wàcc ci kaw suuf koo xam ne day tuur deret di tooñ di moy di wacc sobe ci kaw suuf nun ñu sell ñi nga xam ne du nu lekk du nu naan xamunu bànneex xamunu mer xamunu naqar sàbbal la ak sellal la ak màggal la mooy sunu lekk di sunu naan di sunu dund nga wàcc nu fii indi fi kooku mu ne leen li ma xam xamu leen ko fekk boobu bi bindee suuf lépp loo xam ne day jëriñ nit mu ngi ci biir suuf du fi indi mukk koo xam ne du génne njariñ yooyu du xam ndax kooka taxul ñu sàkk suuf doomu aadama mi tax ñu sàkk suuf moo mën a wuutu yàlla ci kaw suuf ca la mu bokk ak malaayika yi mu xam ci boroomam di ko jox xaqam sàmmonteeg xaqam yépp di ko jaamu ci sellal ni nga xam ne noonu lay yelle bokk ak ndundat yi bànneex ak naqar di lekk di naan di wér di tawat di gaañu di xam lu koy lor di ko wattandiku di gis lu am di réere lu amul di liggéeyal xelam di sàkk ay expérience ci kaw suuf ci di jàng suuf ak régal yi ci nek nga xamni mom la nit meuna dunde di génne ci biir suuf xéewal yi nga xam ne koy génne ta doom aadama ko meuna jëriño lu démé ke essence bi nu gis légui bu nu dawalé bu nu liggéey auto ba not mo koy meuna dawal lu mel ne garab yi nga xam bu nu tawaté mo nuy fajj lu mel ne que jumtuwaay yi nga xam mom la nuy liggéey bay suuf ci ba man ci génne lu ñu jëriño ak lu nu dunde ak lu nu lekk ak lu nu naan meuna bay lo xam ci la ñuy génné li nuy ràbbe ay yére diko sol nga xam ne loolu lépp dafa taxaw taxawaayam ci sappees mbindaa mbindaa fa ne yàlla yi nga xam ne dara waru cee manqué ndax ni turam yi toll tur wu nekk am na lu ko wuyu ci li biir li mu bind doomu aadama taxaw taxawaay boo xam ne leneen mënu ko cee wuutu malaayka bu ñëween ci àdduna yooyu yëpp daañu ko umpale am na yeneen i yoo xam ne xëy na nu àgg ca doomu aadama la ko borom bi jagleel tax mu yeyoo kaw suuf mu mel ne suuf si dafay bato boo xam ne biñ ko liggéeyee ba noppi ñi ci dëkk suñu borom waññi na leen xam li ñu toll xam li ñuy aajowoo fa ñu jëm kañ lañ fa àgg ñiy juddu ci diggante bi ñi fi tawat seeni garab li ñuy war a lekk bu ñu yokkoo li leen di doy lépp ba nga xam ne lépp lu leen di doy mu ngi ci biir bato bi moom nit ay tawatam nekk mu nga war a tawate la koy faj lépp suñu borom prévoir ne ko mu ngi ci biir bato bi doo génn bato bi ngir wuti dara ba ba muy teer fa nga xam ne fa la jëm muy yomal xiyaam bis ba nga xam ne ci lañuy taxaw asamaan si suñu borom nëpp ko ci loxo ndey jooram jàpp suuf nëpp ko ci loxo càmmooñam ne ana kan mooy buur ana kan moo bind jaam ñi li mënul mulku yawma lillahi alwahid alqahari kenn du tontu ku du rabbul izzati moo xam ci xam-xam bu màgg bu mat bu sell boobu mu bind kon suuf war indi koo xam ne mooy xam secret yi fi nekk war koo jëriñoo war koo jëfandikoo war a dajeeg nattu yi fi nekk xam na mu koy muñe xam xéwal yi dem ci sante boroomam leneen mënu ko lu dul doomu adama mu bind koon suuf bind doomu aadama teg fi wan malaayika yi nit ne leen da a juum xamu leen xamu leen li suuf si li tax ma indi fikki jaasi paaka kadir ndab safara lu mu ci woon malaayika yi ni leen lii lu mu duñ xam na mu tudd duñ xam la muy jariñ mu ne aadama jàngal leen aadama ñu sampal ko siis ci kaw suuf mu jàngal malaayika yi ci lépp loo xam ne ni dana sosu ci kaw suuf ba ba suñu borom di taxañ déndam bi mu di leen ko jàngal kooku mooy professeur bi njëkk a jàngale ci li yàlla bind muy aadama élève yi mu njëkk a jàngal wala étudiant moo di malaayika yi suñ borom wan leen ne la xalifatulahi fil ardi ngi nii loolu nga xam ne boo fekku leen ko ci am na la ngeen xam ne moom ngeen waroon a jagoo fekk na leen ca ba moo leen ca raw daan ko waxtaane insha allah أما نحن فنقدم لذلك مثالا نظنه موافقا للواقع وهو أنه تعالى لما خلق الله الأرض وخلق آدم جعل الدنيا كالفلك غادر محل انطلاقه قاصدا محطة انتهائه وجعل فيه كل ما يحتاج إليه الركاب وعرف أرد من يولد في الطريق كل بتاريخ ميلاده ووفاته وقدر ازديادهم مقدارا وزمنا ومكانا وعرف الأمراض التي ستعرض لهم كل مريض في وقته وجعل فيه أدويتها وقدر الحوادث والأقوات وكذلك طبائع الأماكن والمناطق اللواتي يجتازونها في سفرهم إلى الانتهاء حتى لا يختل نظام ولا ينقص حاجة وكل شيء موجود ومقدر بكمية وكيفية ووقت وركب في المسافرين عقولا وعلمهم كيفية كل عمل وأداة لقضاء حوائجهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وزاد بعضهم بسطة في العلم والجسم وفضل بعضهم على بعض في كل شيء وكل متخصص في ميدانه وجعل منهم رؤساء قادة ووجهاء سادة وعلماء وشرفاء ووضعاء والواجب على كل أحد أن يؤدي واجبه ويعرف قدره ويقف عنده وهم مع ذلك سواسية كأسنان المشت شرعا بالقسط والعدل فكل تفريط يقع في الفلك من قبلهم يجر عليهم الوبال وكذلك كل إفراط وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كتب لهم دفترا فيه القواعد العامة التي تهديهم إلى الصواب في كل نازلة في كل محل في كل حاجة وفق ما قدر في الفلك وهو الدفتر الذي يحكم الفلك وركابه في كل شيء وذلك الدفتر هو القرآن مفسرا بالسنة فإذا أراد أهل الفلك أن ينبذوا وراء ظهورهم هذا الدفتر وكتبوا لأنفسهم دفترا آخر من وهمهم المضل وجهلهم المظلم المركب ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ñu gis ne kon doomu aadama bi ko yàlla sàkkee indi ko ci adduna adduna am ay règle yu ko régir yoo xam ne bépp fu doomu aadama bëgg a yoon wa tëral nañ ko mu war a kon jàng ba xam yoonu li mu bëgg ngir mën a àgg ci li mu bëgg jàng bi muy jàng li mu bëgg ngir bëgg ca àgg aajowoo gi mu aajowoo loola te xam ko tëdd ci xam-xam bu mu joom gannaaw nag buñ ne bato bi règle yi moo ko régir lii rek mooy àtte bi te loolu buñ ko seetee mooy alquran nga xam ne alquran mooy téere bi wér bu authentique te mag ci kaw suuf mboolem téere bu ko fi jiitu wala nga ñëw fi gannaawam tuuti buñ ko seetee benn wérul walla lu bari soppi ko na ca wala lu bari manqué na ca wala njuumte yi bari na ca lool alquran ba mu wàccee ba fii nu toll raw na science raw xelum doomu aadama doomu aadama yi dañuñu boo ba léegi di ci découvrir maanaam di ci sulli ay xam-xam yoo xam ne science sore woon ak sore woon na ak àgg ca te ndeke alquran moom weesu woon na ko ba xamaloon ko doomu aadama yi duñ ko xam nag ñoom ba ba tey ci àggee ñu gis ne kon bu aadama yi ñëwee ci kon gaal gii nu dëkk kat dañuy sànni deftar boobu nga xam ne moom lañ fi indi duñ ci wéy dañuy sàkkal ci sunu xelum bopp ak sunu xam-xam beneen téere boo xam ne moom la ñuy dundee fii ci biir bato bi yàqu-yàqu ñëw na nit lu mu xam li mu xam li mu néew néew tey rek la yam xamul ci ëllëg dara démb lu ci bari fàtte na ko li mu xam tey leeru ko naññ ndax bis bu ne mu di ci sulli ay njuumte yoo xam ne xamu ko ci woon ba xam-xamam moo tax ñuy gis ne day màgg day màgg rek xam-xamu yàlla nag du màgg ndax lépp a teewandoo fi moom amul tey ak ëllëg ak démb lépp mu mel na tey fi moom su borom comme ni ñu koy faral a waxee rek muy jamono muy bërëb mënu koo ëmb kon amul ëllëg moom mi nga xam ne nag lépp ak la sëppandoo gisandoo lépp mu tëral reegal yi moom ci boppam ne lii mooy dund àdduna jaare leen ci nii amul lenn lu gën conformé ci téere boobu mu gis ne nag xel mu mu dikkee ci diine lu am njariñ la ndax xel a tax suñu borom togg doomu aadama jëf waaye xel dafa dugg ci kaw eh, jàng mokkal dégg waaye bu fekkee nag dafa bëgg li mu waroon a jàng war koo mokkal war koo dégg daf koo bëgg a ci fee fel yoonu boppam foofa la ko yàqu-yàqu yi ñëwale nga loolu buñ ko bëggee lim dana bari lool fi nga xam ne doomu aadama yi njuum nañ fi njuumte yoo xam ne tardé li leen ay siyeekali siyeekali ay xuruun yoo xam ne tardé nañ ko ci njuumte lu ñu juum nga xam ne li tax doxu maanaam xam-xamu adduna rek yéex moo di njuumte yooyu dañuy sax ci gëm lenn di ko jéem a expérimenter duñ ko mën ci zahir rek ñu sax ci loolu dëkk ci dëkk ci dëkk ci ba jamono bu yàgg passé ñu soog xam ne lii ñu nekkoon kat njuumte la ñu soogu cee dellu si loolu moom moo tolloog ne doomu aadama xelam mënu la làmb lépp buñ gisee lépp loo xam ne lii ab xam-xam la bu fi du yonent ko fi indi lu dul doomu aadama ci xelum doomu aadama faaw nu gis ci ay wàññi ko wàññi bu jamono demee ba ba sori itam daan daan ko weesu daan ko mujj weesu ñu xam ne lii weesu nañ ko amatu njariñ ci noonu wala ñu dem ba mu sàppi ñëpp walla ñu dem ba nit kenn dootu ko bëggati li nga xam ne nag moom mooy bees waxtu wu nekk ak ñun te mooy sujet bi ñuy traité moo di alquran ci biir l'islam ni mu prévoir lépp luy problème lépp luy problème nga xam ne résoudre nañ ko bu yàgg nga xam ne léegi li nu ci jox am bàyyi am lënd rek mooy sunu ñàkk gëstu ak ñàkk dégg dégg dégg alquran daanu ci joxe ay junj ak i tegtal soobee yàlla lisa kama qala ahadul mustaqafina فإن الإسلام ليس عقيدة دينية فحسب وإنما هو طريق لحياة تتمتع بنظام حكومي خاص وقوانين خاصة ومؤسسات خاصة ويسود الاعتقاد أن النهضة العلمية في أوروبا قد قامت بفضل الفكرة الإسلامية التي كانت لها باعثا في الأساس اعتبروا هذه الناحية التي كانت لها باعثا في الأساس إذ جهلوا كمال الشريعة كمال الشريعة الإسلامية وشمول تعليم الشارع واجتهادات المجتهدين ولو أنهم درسوا كتب التشريع كما ينبغي وعرفوا إلى أي حد وصل أعمال الأصوليين في التفكير والقياس والاستخراج لما تعجبوا من صلاحية هذه الشريعة لكل عصر ومكان ولو فهموا هذا لتيقنوا أنه لا يبرز في العالم تحد ما لا يتغلب عليه حكمة التشريع الإسلامي بل من الممكن أن نقول إنه ليس هناك أي تحد على هذا على هذا الاعتبار وإنما المتحدي حقيقة هو الإسلام فالقرآن هو الذي يتحدى ولا يقدر مخلوقا مخلوق أن يدفع تحديه لأنه من الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا وثمة عدة إيديولوجيات اقتصادية في العالم ولكن لا يبدو أن واحدة منها قد لا مثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا وثمة عدة ايديولوجيات اقتصادية في العالم ولكن لا يبدو أن واحدة منها قد لاقت القبول في تلبية حاجات المجتمع الإنساني وغرائزه ولنأخذ على سبيل المثال النظامين الاقتصاديين المسيطرين مسيطرين على العالم اليوم أي الرأسمالية والشيوعية فنجد أن كل منهما يحاول جاهدا أن يحسن أوضاعه ومع ذلك نرى أن الوهن يتسرب إلى الشيوعية تحت ضغط الملكية الخاصة كما نرى أن الرأسمالية تحاول إيجاد طرق ووسائل لتوزيع الثروة الوطنية لصالح المجموع على حين أن النظام الاقتصادي الإسلامي يوفر عقيدة اقتصادية يسمح فيها بالمبادرة الحرة ويحذر تراكم الثروات في أيدي القلة وهكذا إذا فالإسلام هو الوسيلة الذهبية التي طالما فكر فيها العالم برمته وينظر إليها كهدفه الأخير ولم يصل أحد إلى حل مقبول في غير الإسلام وذلك لأن الإنسان إذا لم يعتبر إلا هذه الحياة الدنيا ولم ير في الحياة إلا المال تكالب عليه وتنافس على حبه أن يحتال حتى تنصل من تبعة القانون والنجاة من القانون البشري غير مستحيل بل هي ممكنة كل الإمكان قارف كل جريمة في العالم ليتملك لأنه لا يخاف شيئا آخر فلا يلوم إلا نفسه فيلوم نفسه laa yalumuhu laa yalumuha illa li dufihi aw gaflatihi an axdi xadarihi xata laa yuqbad alayhi fa hada huwa mujtamacu alasmaak wa qanuni adral faqad xaarabahu alislaam ñu ne gis nañ ci homme de culture yi ñoo xam ne dañu jàpp ne l'islam pas-pasu diine rek la dund gi bokku ci régiru ko ndax lu tax gis nañu ne diine yi ko jiiti woon yépp diggante nit ki ak boroomam rek la sàmm nu gis ne doomu aadama dafa am fu mu tàmbalee dafa am ak ndaw maanaam bi mu nekkee di liir di màgg di màgg ba ba muy màggat do kon dopp maanaam euh, al insaniye li ñu tuddee humanité bi mu tolloo ci enfance am suñu borom dafa ko yónnee diine joo xam ne dafa tolloo niveau am a régir ni muy dundee ngir jaarale ko ci yoon jooju diine moo tolloog le judaïsme diine yahut yi ñu dem ba humanité àgg ci adolescence am xelam gën a màgg tuuti mu xam lum mu xamul woon gis lu gisul woon man lu mu mënul woon aajowoo yu mu aajowoowul woon suñ borom gis ne diine jiñ ko joxoon war nañ koo soppi léegi tollale ko xelam ak xam-xamam ak mën-mënam ndax mooy mën a tax mu faj ay aajoom ndax mu mel ne liir ñu di ko jox soowum doomu aadama meenum doomu aadama mu di ko nàmp bu màggee suñ ko joxee suñu rattee yi kii meew nit jox ko dana wàcc wala du ko naan naka noonu nga xam ne liir bi bu ñu ko joxee yàpp du ko mën a reesal day dee non suñu borom la jàppanteeg doomu aadama fu mu toll mu di ko indil li mu aajowoo ndax xam gi mu xam moom mi bind alaa yaalamu man xalaqa li doomu aadama aajowoo ci zahir ak ci baatin mu di ko ko indil bi nga xam ne doomu aadama àgg na ci maturité maanaam euh, humanité ñor na ba nga xam ne léegi fii mu toll lum dem dem dem dem dem du weesu ci ay aajoom ak ci yëg-yëgam ak ci defaroom lii mu tolloog lislaam moom nga xam ne buñ ko dee seet ci nattale ci maraaxil maanaam ci état bi enseignement le judaïsme mu ngi tolloog enseignement primaire le christianisme tolloog enseignement secondaire l'islam tolloog l'enseignement supérieur loolu moo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bàyyiwuma dara loo xam ne lii lu leen di jëriñ la wala lu leen di lor te leeralalu ma leen ko nga xam ne ji diine doomu aadama du ko wees mukk lu yàgg-yàgg fu mu toll ak nam fa tolloo dana cay gindiku euh, euh, di ca jëriñu di ca gën keneen ku dul moom bu ko joxee xàqam ba ba addunay tukki lu science développé développé développé lu doom aadama ñor ñor lu mu gëstu gëstu lu mu farlu farlu lu yàgg yàgg lislaam a ngi ci kanamam alxuraan a ngi ci kanamam du dañ di ko jox ay kaawtef yu mu mësul woon a xam yu mu mësul woon a foog di ko ko woon te waxtu wu science découvrir dara dana fekk ne alxuraan waxoon na ko ba jiit na ko ca bu nu bëggee joxe misaal ci yooyu dana bari lool lool lool lool waaye ñi xam ne ñëpp dëpp nañ science te jàng l'islam wala ñu jàng dara ci alquran xam nañu ko alquran li mu découvrir ci science manis ko wax li ci gën a rajje dem nañ ba nga xam fo xaaw yi ci dégg yi leen yàlla may buñ gisee ne suñu borom tere na dara ci alquran dañuy gëstu euh, foxoolu usul yi nag xam ne jàng nañ usul les principes de la dañoo tëral ay règles yoo xam ne bu ñu jàppee waxi yonent bi wala waxi yàlla noonu lañ koy interpréter bu fekkente ne benn xew-xew xew na boo xam ne atteem mënuñu ko gis ci téere yàlla bi wala ci waxtaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg gi ñu dégg esprit l'islam ñu mën a def ay nattale ba xam ne lii kii lii la nii la ko l'islam gisee te nii la ko bëggee ñu tëral yooyu atte usul yoonu yooyu bi ñu bu ñu demee ba ci atte boo xam ne ndax atte boo gis am na illa maanaam am na sabab lu tax atte bi ñëw illa mooy loo xam ne bu saxee rek atte bi sax bu dàqoo atte bi dàqu mooy waxtu woo xamee ne doomu aadama naan na sàngara bu dee gor ca temps yooyu loolu sax dana leen fàttaliwaat affaire gor ak jaam ak critique yi nga xam ne ñenn ci occidentaux yi daanañ ko ci def amunu temps pour tawante yi nga xam ne mooy wedam loo ñooñu ba dootuñu am luñ lu ñu wax du bokk la sujet bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane waaye fuqahaa yi ñu demee ba nga xam ne gis nañ ne yàlla tere ne nangam daañu def seen ijtihaad léeg-léeg ñu ne nangam jee tax ndax nàngam ji l'islam daf ko bañ lor ji nangam ak nangam léeg ñu dem def li ñu mënoon lépp duñ xam lu tax yàlla tere ko loolu la ñu tuddee taabud taabud mooy dañ koy def rek ngir jàmm yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ne boo xaj xabee ci ndab na ngeen ko raxas juróom ñaari ndox am benn riwaaya bu ne ndox mu mujj ma nañ tibb suuf def ko ci seet nañu seet ne lan moo war a war a loolu ndax xaj bi bu ci xabee dem dellu si xabaat si dema si dellu si xabaat ci ba muy fukki yoon itam juróom ñaari yi rek duñ ko weesu juróom-ñaari xaj ñu ñëwee àndandoo xabandoo ci itam juróom-ñaari ndox yi rek duñ ko weesu lu tax chéré aday mbaam xoox la gën a sib ci xaj te mbaam xoox boo dugalee gémmiñam ci ndabal ndox naan ca wala mu waccu ci sax benn ndox rek lañ koy raxas kon loolu lu ko waral fuqaaw yi xamuñu ko ci jamono booba ñu tuddi ko ñu ne taabut bu ngokk taabut loo xam ne digal nañ def te xamuñu illa loolu science dong moo découvrir la na taxoon sallallahu taala alayhi wa sallam xam ni galande maanaam rudat yi nga xam ne moo nekk ci kii wu xaj waxtu woo xamee ne ŋaang na di xab rek lay ubbiku microbe yooyu sotti ci ndox mi ñu dem ba ne analyse analyse suuf am na matière bu mu xam ne moo mën a asphyxier moo mën a euh, xëjloo moo mën a rey moo mën a dindi lori jàngoro yooyu jarasim yooyu nga xam ne moo nekk ci biir ne nga ndox mi nga xam ne xaj bi xab na ci ba mu euh, diib ci ba ku jëfandikoo ndox mi loolu mën na topp ba kon gis nag ne xam-xam euh, sharia dafa tëdd fu xóot fu raw xam-xamu doomu aadama bu doomu aadama ci gàtt xelam gisee zaahir bi mu jàpp ne moom kat mën naa doyloo xelam ba jaar ci mbiri adduna dana jóg nga gis ne am na problème yu bari yoo xam ne day gaar ci dundu adduna gi nit ñi nga gis ne ñi nga xam ne gëmuñu l'islam xamuñu alquran seet nañu seen solution yi bopp ba jàpp ne résoudre nañu problème yooyu ñu gis ne ñoom seen bopp dem nañu ba xam ne problème yooyu ñoom kat sore nañu ak résoudre ko te feeg ñu ngi dund ci adduna problème yooyu di posé te day gën a aigu te dana dem ba mën a indi ay yàqu-yàqu wala mu daree si nit ñi les uns contre les autres maanaam xeex ñu te wala yooyu bu ñu seetee problème économique ñu gis système yi nga xam ne moo gën a siiw ci adduna bi ñaar yi nga xam ne moom la nit ñi ci la ñu séddalikoo mu di capitalisme ak communisme ñu gis ne doomu aadama yu bari yi nga xam ne xamuñu solution bi l'islam jël ci tëral jàmm ci biir nit ñi doxale alal ji fi nekk yoon woo xam ne kenn du bañ sa morom kenn du jàpp sa moroom def ko ne jaam maanaam ci am goo ëppale goo ko ëppale ci alal di ko liggéeyloo te sa sañul bañ ngir euh, bëgg gi mu bëgg njëriñam war a dund amul meneen pexe nga di ko exploité di naan deretam di naan dooleem di ko rey ba ba nga xam ne manière day nekk seen diggante loo mën a indi ay problème wala doomu aadama boo xam ne yàlla ba mu bindee nit ñi dafa sàkkal ku nekk wërsëg ñu war a ëppalante yi wërsëg nga xam ne loolu moo juste ndax yàlla bu ñu ko seetee amul dara lu mu yemale yemalewul fan yi ñii dañuy juddu daal di dee ñii dund téeméeri at yemalewul kàttan yi ñii dañoo am doole bay bëri ci làmb ji ñii ñàkk doole ba buñ jógee daanu nga xam ne ñii noonu la ñu wutee ci wërsëg ñii dañoo bari wërsëg ñii néew wërsëg lool ñii am daraja ñii ñàkk ko ñii am xel mu ñor moo xam ne mën nañoo nax nit ñi ñii gàtt xel yàlla yemalewul dara kon ba mu yemalewul wërsëg bu nu bëggee ne jaam ñi nañu yem nañu yem ci wërsëg daanu tooñ te loolu tam yàqu-yàqu yi muy indi yu bari la du nu am temps développé yooyu yëpp foofu ñu gis na l'islam moom comme ni mu tëralee dem nañ kon ba ne kon défi bi nga xam ne mooy défi bi jóge ci iqtisaad iqtisaad maanaam mooy économie défi boobu ba ko l'islam relevé ca tàmbaleem la ni gis ne doom aadama yi nga xam ne kon teg nañ fee alquran di xalaat seen xalaat yi bopp gis nañ léegi ci socialisme communisme danañ xamal ne nit fi muy xalaate mooy ci daaira bi ko wër li mu gis dong fa mu gisagul la mu gisagul xamu ca dara li mu gisagul am na régal yu bari yu ci nekkul yi mu gisagul am na ci yu fi nekk mu di ko gis te day dem ba dañ gis ne nekkoon nit mënu la àtte àtte buy sax ba faw ci àdduna ba ba faw mënu la nekk ndax doomu aadama bi mënul xam dara ci ëllëg mën na nekk ci ci réew mi xam li ci réew mi lépp waaye mënul xam ci réew moom demagul kon loolu moo tax moo indi seen njuumte nu gis ne ñaari mag yooyu nga xam ne kenn ku ci nekk kon ñaar ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk fu mu toll di jéem a dugalaat ay rafetal ak i changement ak i réglementation ci biir système am ndax xam ne li mu jàpp doyul toujours jamono di ko wan ay faiblesse ci biir loolu mu la xalaat boobu mu tëral te jàpp ne mu ngi mel ne alxuraan du dañ mukk mu gis ne ba léegi résoudre ñu ko problème bi te l'islam moom moo résoudre problème bi gannaaw lu ñuy wax wolof di wax arab exposé bi tey question yi dana ñëw ñu bàyyi ci xel ah d'accord man dina jafe de kon nag mu dog yu bari waaye nag rek ngeen xalaat seen xel pour euh, question yi lu bari daal ci question yi lay gën a mën a fileer mm-hmm. la ma taxawlu fii sax ñu dem ci boobu question yi da hmm? ah, tëb boog dem ci mbiri sëñ sëñ bi. ma jàll ci mbiri sëñ bi. waaw ah, d' accord d' accord ma bàyyi lépp bopp dem ci mbiri sëñ Tuubaa d' accord. d'accord kon d'accord nañ ci sëñ Moustapha naa traduire ci anglais tuuti ci li ma doon wax bala nuy dugg ci deuxième partie bi maanaam mbiri Cheikh Ahmad Bamba ci conférence bi islam ci kanamu jafe-jafe ñi àdduna def yi yi dikkal nit ñi xam ne jullit bi lépp lu muy def daf ko war a dëppaleeg lislaam mu am ay xew-xew yoo xam ne dafay bees mais àddunay doxe xalaat yooyu kes xew yooyu lan moo ciy xalaat lislaam jafe-jafe yooyu nan la ko lislaam gisee ak nan lay mayee doomu aadama mu fexe ba gi wala mu jaar ci kaw jafe-jafe yooyu te du ko dikkal coono wala ak jaaxle ne kon nit ñi ñu ngi ci jamono joo xam ne day dox dox bu gaaw soppi ko yu gaaw lool doomu aadama dem ba di dem ci weer bi dem ci biddiw yu gën a sori weer bi di xotti biiru nit di seet jàngaro ñu ci nekk nekk ci dëkk bu soree nii di jànloog lay xew ca Makka xam ne lu xew ci pàkki suuf yi fa gën a sori fa gën a sori dana ko yëg ba nga xam ne doomu aadama yi xaw nañoo demee ne ñu bokk benn dëkk ci yëgante lépp lu xew ñee xam ko di bokk ay problème di bokk ay jaaxle loolu lépp góorgóorlu bi ñu góorgóorlu ba àgg foofu ba dind yu bari am wet boo xam ne sàggane nañ ko ba mel ne difu ci dara mooy yar seen bopp melal seen bopp na doom aadama jub jub war a mel mu taleen ticc nga xam ne ci góorgóorlu googu ñu góorlu nit koo xam ne du borom wërsëg du buur nit ku yem ku yem ci ci yemamaay la mu ngi dund dund koo xam ne moo dàq dund buur ba nga xam ne lu jiitu ñaari téeméeri at wala ñetti téeméeri at mu ngi doon dund ci adduna di buur te loolu lépp ci xelum doomu aadama ak i góorgóorloom ak i pexeem la ko ko yàlla maye waaye loolu lépp taxul mu mën a yar boppam ba yennati jafe-jafe yoo xam ne ñàkk a yar boppam ko yóbbee coono yoo xam ne ñàkk a mën a yar bopp ma ko ko yóbbee ñàkk yërmande joo xam ne ñàkk a mel na mu war a mel tax muy fab alal ju dul jeex di ko dugal foo xam ne weesu na fa mu ko waroon na dugal mu jëriñ doomu aadama yépp jëriñ ko moom mi nga xam ne moo yëkkati alal jooju di ko jëfandikoo di fab alal di ko def ci luy lor doomu aadama ku nga xam ne mooy borom kàttan di borom alal du yërëm ki nga xam ne moo lot ni nga xam ne moo waroon a am ndax doomu aadama yépp ay mbokk lañu ci kaw loolu li ko waral mooy taxaddi bu mag loolu nag mooy li alquran njëkk a firi moom la njëkk a tekki ndax aaya ji njëkk a wàcc ci alquran donc jëm ci mbirum sëñ bi moo iqra ci bismi rabbika la dal di teqli kook kenn képp ku newu ci lislaam ndax bu ñu nee iqra jàngal jàng ñëpp a koy def jàng xeetu jàngin wala la nit di jànge mu ne nit mën na ko wutee xam-xam waaye bismi rabbika na nga jànge ci sa turu boo xasee jànge sa turu borom boo amee gànnaay da nga koy jëmale ci dagg lor yi ak dindi tiis yi waaye doo ko jëmee ci lor sa moroom doomu aadama bu fekkee nag dangaa ngaa jàng iqra bismil ilmi maanaam jàngal da ngaa jàng ci turu science rek jàng ci turu science moo waral nga jàng ba am xam-xam xam na mën a defee ak na nga mën a dindee te doo ko jëmale ci luy jëriñ doomu aadama yëpp doo ko jëriñ jëmale ci lu yàq nit doo ko luy luy defar nit lu di ko jëmale ci yàq nit di ko jëmale ci xëccoo gën a njëkk gën a womlonte gën a amante kàttan gën a man gën a féete kaw di rawante di rawante kenn koo xam ne kii ku ci nekk yaa ngi fexe na nga mën a naxe sa morom ba lekk alalam wala boo ko ëppee doole te kenn nekku fa nga mën a fexe ba jël alalam boo mën a fexe ba yoon yi nga xam ne moom la ñuy àttee ku tooñ nga mën a jaar ci teggi woo xam ne danga mën a def nit ki la nga ko bëgg a def ba am la nga bëgg a am ba noppi te yoon wi du la jàpp ndax yoon yi ay doomu aadama doo ko doon tëral ci seen xel te xelum doomu aadama moom am na fu mu yem kon gënoon di seen itte mooy yar iqra bismi rabbika bu fekkee ne xam-xam nga am bi rabbika nga ko amee da seet lor ji ci kaw suuf nga di ko jéem a dindi ak fu mu fi mën a nekk bépp mu nit ñi ñoom par kenn kenn ak xeet xeet yi ni nga xam ne noonu nga war a yërëmee sa sa mbokk euh, nit moo xam ne mii yaa ko tane yaa ko ëpp kàttan noonu la xeet wi maanaam état bi war a dimbalee beneen état ba nga xam ne daf ko ëpp loole te du ko jéem a exploité du ko yàq lool foofu nga xam ne bismi bi fi la l'islam taqali ko xam-xamu lu dul xam-xamu l'islam foofu la yàqu-yàqu bépp dikk li xew lépp foofu la xewee ñu gis ne nag bu ñu demee ba doomu aadama yi toll ci béréb yoo xam ne daañu jaaxle ndax dëgg la xam naa ne sànq ne alquran résoudre na problème yépp ak l'islam waaye nit ki daf ko war a jàng teewul nag jikkooy doomu aadamaa ngi fi yoo xam ne mën na xam lépp ba noppi wacc ko fi dem jëfi li ko neex loolu yar rek ko mën a indi ñu gis nag ne kon ci jamono yu mel nii yu la demee nii ulama yi daje woon nañ ci ne suñu boroom te sax ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee ci fonk gi mu fonk l'islam ak yërëm gi mu yërëm bindé fi téeméeri ak bu tàmbali suñu borom dana yoni ben jaam bo xamné dañ koy tuddee mujaddid moy ki bëssal mbiri diine ji moy ki bëssal xol nit ñi bëssal itte nit ñi jaarale liñ ci yoon wo xamné moy mooy gep yàq moy fanq gep lor moy fanq gep réer moy jubale nit ñi di bolé seeni xol ñi di leen xiir ci li leen di jëriñ kooku am ay charte ñu lim bañu tambalé gis mujaddid am na conférence bo xamné ci loolu rek la ko consacré won diko tambalé ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamné moy mooy mujjadit bu njëkk ba l'imam Shafii al baqlani ba ba ngay agsi ci l'imam Ghazali ñu gis na sart yi bokk na ci nit ki téeméeri at bi bi muy tàmbali da fekk muy dund ne nit koo xam ne dafa xam alquran xam hadis ne nit koo xam ne ngëmam kenn werante bu ko ne nit koo xam ne xelam dafa mat ne nit ku jub loo xam ne day nekk sang boo xam ne royukaay lay doon kenn du am dara loo ko mën a jame ne nit koo xam ne yàlla doo ko itteel du senn ci du sonn ci lenn loo xam ne du ngërëmal yàlla la cay wut ñu seet ko ba mu jeex ki nga xam ne moom la bëgg a waxtaane di ki matal charte yi muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu bi mu ñëwee mu seet li gën a itteel mu di yar ndax yar mooy defar mooy mott li li gën ci li yàlla bind li yàlla bind lépp nit a ci gën ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fu nit war a yàqoo ka ko war a defar ba mu mel na gën jëf na jëf yoo xam ne kenn mënu la jëf jëf ju ko ëpp wala ju ñu toll ci kaw suuf ci leneen ndax suñu borom dafa ne laqad xalaqna l-insaana fi ahsani taqwiimin summa radadnaahu asfala saafiliina illa allaziina aamanu wa amilu saalihaati ni ma wax woon ca tàmbali ba suñu borom bind na doomu aadama ci melaw yu gën a rafet melaw doomu aadama boo ko mooy melaw yu gën a mag dañuy wax ne malaayika yi nga xam ne ñoo gën a sell ci li yàlla bind duñu mooy am na ci ñoo xam ne melooy tan la ñu amee am ñoo xam ne melooy gaynde la ñu amee ñoo xam ne melooy fas am ñoo xam ne melooy nag doomu aadama ndong di ko xam ne day taxaw ñaari tànkam ay loxoom di lëng boppam féete kaw mu ànd ak xelam lépp loo xam ne suñu borom bindoon na ko ci ba lu lépp lu am daj lu ci nekk mu sàkk ca dugal ci biir doomu aadama ba tax mu mën koo wuutu ci kaw suuf ki nga xam ne liggéeyam mooy sellal doomu aadama boobu yàlla teg foofu nga xam yàlla li mu sàkk lépp nit dong ci nit dong la ci sàkk xarit moo wa taxawee la Ibrahima xalilan doo gis fenn foo xam ne wenn xeet woo xam borom am na xarit wala am na ca soppee ko ni ko defee Muhammad ni wala am na ca xarit ko defee Ibrahima wala kum ca waxanteel waxam ji nga xam melaw jëmmam jaa nga sosuwul du ay xaraf du ay baat baat te boo ko dee dégg sa nopp rek du ko dégg sa cëri yaram yépp a koy dégg ba ci sa karaw yi yaram yi du la féete kaw wala suuf wala ndeyjoor wala càmmoñ wala gannaaw wala kanam fépp la lay féete nga xam ne wax jooju nga xam ne suñu borom moo ko jagoor te aw melo la ci meloom yi nit doo nga la tànn wax ca moom loolu le Muhammad mi ci lépp lu mu bind mu boole ko ci nit ñi yónniwaat ko ci nit ñi nga xam ne kon ci fonk boobu yàlla fonk nit bëgg gi mu bëgg mu mucc loolu doy li mu bind lépp jox leen ko ñu di ko jàng mu di leen ko won ba mu leer ci ñoom doyul mu di sàkk ci téeméeri at bu tàmbalee suuf si ci ati gàddaay gi mu yónni benn jaam boo xam ne day xettali bindeef yi tar xeetu li moom leen di xettalee moom dong ko man keneen mënu koo wutu ci ko suuf bu ñu indi woon téeméeri junni nit yoo xam ne kenn ku ci nekk da ngaa am ngëneel lu sa morom amul ñu mott leen te bu ñu taxawee du ñu mën def la koo ko def ndax dégg ngeen ñu ne sëñ bi nee na bu dul woon dem gii mu demoon ci géej gi wolof yépp daañu nasaraane ndax li tax daañu nasaraanu moo di bi nga xamee ne tubaab yi ñu ngi ñëw ak seen kàttan ak seen xam-xam xam gi ñu xam lislaam ak ko ragal wartandiku gi ñu koy nag wartandiku ndax mën a boole gi mën a boole xol yi def leen ñuy benn ndax mbooloo mu ñu moomu rek la ñu ragal ndax suñu sañoon gannaaw ñoom dañuy fas yéenee napp nit ñi duñ bëgg mbooloo moo xam ne dañoo ne seen i xol day nekk benn te loolu lislaam doo nga ko mën a tax ñu seet doomu aadama yépp ni nga xam ne noonu la suñu borom tabaraka wa taala seet yére xol yi bindeef yépp mu gis ne xolu euh, Muhammad ibnu Abdillahi maanaam Muhammad ibnu Abdillahi Muhammad ibnu Muhammad ibnu Habibillahi bi nga xam ne mooy xaadimu rasul moo ko ci gën a sopp tax mu tànn ko def ko muy xaadimu rasul nga xam ne boo nee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noonu suñu borom tànne ci ngëneel loo xam ne dafa am ci jëmm ji ba tax mu tànn ko. nga xam nag ci ay melo la mu tànn ko tànnal ko jamono indi ko ci jamono ba nga xamee ne borom xam-xam yi daje nañ ci ne ci ñëw di li jamono day matal sart yooyu mu matal sart yooyu mu ne bu fekkoon te ne demul ci géej gi wala fépp daañu nas daañu def nasaraan ndax dégg naa ci lu ëpp ñaari nit ci mag ñi lu mat ñett ñu ne sëriñ bi nee na waxtu wi nga xamee ne demagul ci géej gi muy jamono yi nga xamee ne lépp lu nitu yàlla di am am na ko waaye liggéeyalagul suñu borom ba mu wan ko ne gërëm naa la jox la añ boo xam ne képp ku la topp dana dana dana ko doy sëkk ba nga xam ne kenn du ko mën a jeexal ni muy waalaa li labraaru fi oxraaya wal qaabili bilamtiha qiraaya nga xam ne kon bu ko adduna bépp toppoon itam añ bañ koy añale ëllëg dana leen doy sëkk loola amagu ko woon ndax liggéeyagu ko muy seet loolu nga xam ne moom la war liggéey li neex suñu borom ba nga xam ne amul benn jaam bu ko ko mën a liggéeyalati lu dul moom te xamagul loola fu mu féete ak la mu doon amul lu dul bëggam nga ak xiram nga ak dogoom nga mu wan gannaaw lépp lu mu doon jublu yàlla ak yonent bi rek ngir loolu koy xeeñ te gënal ko bakkanam gënal ko lépp mu bëgg koo am te xamagul fu mu jaar doomu aadama yi nee ñu boobu ni mu ko waxee dafa mel ne réew moo xam ne xiif daf ci am kër amul loo lekk ñu fekk jëmm joo xam ne dafa ràbb ay saxam ba mu mat ku ko gis dafa ne fees na dell ak dugub te fekk na benn pepp nekku ca mu ni bu fekkoon ne demul woon ci géej gi ñoom ñëpp daañu alku ndax booba du yegul saxam yooyu ba ñu fees ak amagul loo xam ne xajul ci ay sax nga xam ne bu ñu ko dee fay yow ma xiyaam dañ koy jóor kenn du ko wàññ kenn du ko natt kenn du ko meetare kenn du ko def ndax li mu wax ne wan xaabili bilante xiraa moo di berne berne goo xam ne amulub dayoo moom la ko suñu borom defal li nga xam ne nag moom la jagoo nga xam ne benn mbindeef amatu ko ñi nga xamee ne ulama yi d'accord nañ ci ne doomu aadama ñaar la mën a gënal benn muy jëf wala daraja ji ko yàlla jagleel. xam ne nag moom la jagoo nga xam ne benn minif amatu ko ñi nga xamee ne ulama yi nañ ci ne doomu aadama ñaar la mën a gënal benn muy jëf wala daraja ji ko yàlla jagleel. mooy ngëneel ñaari xeeti ngëneel la alfadlul ixtisaas yi mooy ngëneel li nga xam ne suñu borom ko jagleel jaam bi alfadlul kasbi mooy ngëneel li nga xam ne doomu aadama bi moo ko fàggu alfadlul kasbi doomu aadama bi ba ko yàlla bindagul la ko ko sàkkal ni nga la sàkkee ajjuma def jox ko ngëneel loo xam ne fàggu ko ci kaw bis yi ni nga xam ne la sàkkee weeru koor jox ko ngëneel loo xam ne ko ci kaw weer nga xam ne la sàkkee pàkk yi kaw suuf yépp sàkk pàkk ba nga xam ne ca la kaaba ngay taxaw mu gën ci pàkk yi te faggu ko loolu mooy al fadlul ixtisaas yi ni muy sàkkee doomu aadama def ko muy yorent te liggéeyal gu ko dara wala mu def koy wàlliyu te liggéeyal gu ko dara kooku mooy al fadlul ixtisaas yi al fadlul kës bii nag moo di sabab lu nga xam ne suñu borom dafa tëral sabab yi ci ay lay ci kaw sabab yi nga xam ne loo bëgg da nga koy sabablu da ngay jaar ci yoon lu nga xam ne ca ko mën a amee ngëneel loolu nga xam ne nag mooy alfadlul kës bii bi nga xam ne suñu borom may na ko ba matal ko sëkk alfadlul ixtisaas yi mu des alfadlul kës bii alfadlul kës bii mu geestu fu mu ko mën a motlee ba am ci loo xam ne dana sedd xolam ndax xir gi ko yàlla bindee mu gees gis ne mboolem jaami yàlla ñi fi mas a jaar ñëpp ñi ci ëpp yool ba kenn mënu leen a jot ñooy saxaaba yi ndax saxaaba yi ñoom la suñu borom jagleel xare badar ñoom la suñu jag borom jagleel bay ak ridwaan ñoom la jagleel ahlul ñoom la jagleel ña tànn si ñoom fukk ñoo xam ne dara mënu leen a yàqalate ñoom la jagleel ngëneel yoo xam ne keneen amu ko a ndax ahli nee ndax wóoru ne ya suñu borom sëpp na ñi xare woon badar ni leen def leen leen soob dootuma leen jàppale dara ñi nga xam ne la ko waxee ci Seydina mu seet ne kon alfadlul kës bi ñi ko ëppale ci ñi yàlla bind ci ñi nga xam ne ay jullit lañu gannaaw yonent yi moo di euh, saxaaba yi mu seet nag ne nan la mën a jote saxaaba yi gannaaw moom ulama wu yëpp ak euh, awliya wu yëpp ku mënul awliya yëpp d'accord nañ ci ne mbindeef mënu la fexe ba jot Abubakar wala Omar wala kenn ci saxaaba yi ci jëf jëf yooyu ñu jëfoon ànd ak yonent bi yëpp kenn ku ci nekk am leneen loo jàppoo yonent bi sallallahu sidna Abubakar ci mi'raj bi gàddaay gi mu gàddaay ànd ak yonent bi fanaan ci xunt ma jaan matt ko ak bi nga xam ne yonent bi jóg na fi te laxaab yi maanaam sàmm yëpp ngir bañ a joxe asaka ñu daal di murtat te am kenn amul fitu ne nañ xeex ñoom ndax benn jullit la ñu nangu nañoo julli te te itam mbooloo mu baree baree bari la ñu te it am na ñeneen ñu bari ñuy woote ak yonent ñooñu itam fii ñu dañoo jóg dëgg ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkatu fi ñu fas yéenee bañ Seydina Abubakar dong dong dong ak Seydina Umar li muy am fit yëpp xelam dal lu woon ci xeex ak ridda ahlu ridda yooyu la nee nañ Seydina Abubakar li mu ànd ak saxaaba yépp ñaar ñooñu la leen gën a Seydina Umar itam taxaw gi mu taxaw mom tam gannaaw abu bakar aliin ni mu wuute yonent bi fanan ci lalam fas yene jaay dara tam nga xam biñ dikké defe ne yonent bi ni mu sàngoo mbubbum yonent bi buñ ko rayé ndax yonent bi mo mucc ba mëna agalé wote bi mu wote jëm ci yàlla kenn ku ci nekk nga xam ne am jëf yo xam ne yow dong ko jëf keneen keneen fekkule ca keneen nuróole wu koog yow yow rek la ko suñu borom jagleel booleeg bokk gi nga bokk ci sahaba yi nga ne loolu luqi batul sëñ tuubaa nelawatul amatul jàmm guddeeg bëccëg set fu mu jaar ngir am loolu le te borom téere yépp daje nañ ci ne ñooñu kenn mënu leen a jot ndax Cheikh Ahmadou Tidiane radiyallahu anhu bi nga xamee ne dañ koo tuumaal ci ne salaatul fatihi nga ne li nga ko jox dafa mel ne dafa ëpp alxuraan te da ngaa bëgg a wax ne kon ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ñoo ëpp doole saxaaba yi mu ne leen loolu sama xel xalaatu ko ndax doxub saaba yi ak surub dox mu ngi mel ne picc meewu ñuy wax përintaan nga xam ne moo gën a gaaw ci picc yi ak sampaleñ wuy dox ni picc moomu gën a gaawee sampaleñ noonu la nu saaba yi gën a gaawee ab nga xam ne kon saxaaba yi ñeneen lañu ki nga xam ne nag dafa bëgg fa fasaaba yi sóobe seenu dox mu dëbbee ànd ci ak ñoom ba mu àgg jagoo loo xam ne lii meneen bi nekk gannaaw moom dootu ko jagoo te kenn mësu koo am muy lu wéy ba nga xam ne xalima ga fendi na nee ñu keneen dootu ko amaat mu di nekk gi mu nekk xaadimu rasul suñu borom jagleel ko ko gannaaw bi nga xamee ne suñu borom yër na xol yi mu gën cee sopp yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu seet ak dogu mu gën ko ci ëppale ñu seet ak bëgg yàlla mu gën ko ci ëppale ñu seet ak muñ mu ëppale ko ci ñu seet ak njàmbaar mu mucc mu ëppale ko ci ba xeeti ngëneel yépp jeex ñu seet xam-xam mu ëppale ko ci suñu borom xam ne jëmm ji lay jagleel lii mu denc waaye faw mu yoonal ko faw mu sabablu faw mu làmbatu ndax loolu jubluwul lu dul yee jaam ñi ndax bu fekkee ne dañuy wax ne euh, jëmm ji la yàlla gën a bëgg ci jëmm yi nu xam loolu rek la mënuy jëriñ bariwul daanu ko nangu buñ ko nangoo nag daanu am ngëneel waaye des na lu def fa mu jaar ba am ko ndax lu nekk am na sabab fa mu jaar ba am ko mu gis nag kon ne dafa am melo yoo xam ne moo ko may li nga xam ne kenn mënu koo am ndax kenn mënu la dajalee ci melo yooyee gannaaw moom loolu moo tax mu jaar ci bépp xutbul xaws boo xam ne bii bokk na ci bay bayti di sëtu yonent bi ñoo ñooñu kenn ku ci nekk xamal ko ne ko loolu lott nañ ci moomu ngir ba mu laajee suñu borom mu ne ñi ko waxaale ñëpp bari nañu waaye kuñ ci mas a wax njëgam nga daw mu laaj moom ndax sañ naa xam njëg gi biñ ko ko xamalee mu daal dina suñu borom may ko njàmbaar ak fitu ne moom dana ko dékku ñu ne ko nag duñ la nattu nattu bu wàlliyu ndax taxawaayu yonent ngay taxaw dañ lay teg nattu yonent te bu ko sa bakkan fekkiwul doo ko jariñoo loolu lépp xabalu ko tiitalu ko mu nangu yan boobale yan ko sart yi nga xam ne moom lañ ko ci jox di sart yoo xam ne kenn mënu koo lim ay kax ak i lëj ak yeneen yoo xam ne bokkul ci kax bokkul ci lëj doomu aadama yi di ko jëfandikoo te moom sañu koo jëfandikoo mu bokk ci xeeti ñam yi bokk ci xeeti defin yi du dox ba wut ci ay loxoom du dox ba teen xool asamaan du ne kenn lu ne suñu boroom nangam ji lu tax du tëdd ci lal nelaw du lekk ba suur du lekk lu neex yu yi mu wacc gën a bari boole ko ñu boole ko ak ay noonam yi nga xam ne ñoo ëpp bexe ëpp kàttan gën a soxara ci nit ñi teg ko ci seen kanam lu ñu xam def ko lu ñu mën def ko waaye fu ñu toll lu ñu ko mën a def du mën a yokk ludul ak ngëmam dogom dogoom akuk takkoom su borom ci boppam ànd ci di ko xor ñoñal xor ñoññal gu mel ne gi mu daan xor ñoññale yonent yi ndax di seet fu ak doog takkoom yem ak fu ak dëggoom yem ak fu ngëmam yem yaxya ibnu zakariya dañ ko rendi deret ji di fuut ñu di ko sëkk muy fuut ñu di ko sëkk ba ñu rey téeméer si ñu ko reyoon deret ji soog a dal zakariya dañ ko topp mu génn ñu topp ko ba mu romb garab gu mag iblis soppi ku jëmm dikk ne ko yow yonent nga loo digal loola topp sa ndigal digalal garab gi mu xar nga dugg ci biir moo gën a noppalee nga topp ñii di la dàq te dañ lay jot mu daal ne ah, wax nga dëgg de garab gi xaral garab gi dal di xar mu dugg ci biir garab ga ba muy dugg ci garab gi seytaane daal di téye laf mbub mi ba mu ne garab gi ubul garab gi ne kepp mu bàyyi laf mbub na làcc ci bitti naka gaañu ko bëgg koo weesu mu woolee leen fii la dugg catal mbub maa ngi nii ñu dem fab ab si dale ko ca bopp garab ga di ko siyee di ko siyee ba agsi ci digg bopp bi di ko siyee di ko siyee ba mu agsi xol bi muy bëgg a wokk su borom yebal malaayika ne ko wax ko ne ko bu ne oh ma far turam ci diwaanu yonent yi Zakariya